waa Pharma Nature ñoo leen di may seen revue de presse ñu yor ay produits yoo xam ne lépp dafa naturel muy saafara impuissance sexuelle néew kàttan ak ñi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe ci seen biir néegu sëy wàllum siti bu yàgg wàllum jabet wàllum tension loole lépp jokkoo leen ak waa Pharma Nature fu mbokk nekk ci àdduna bi jàppal ne mën ngaa jokkoo ak waa Pharma Nature ci 77 457 57 62 Pharma Nature moo leen di may seen revue de presse. jërë ngeen jëf furniru amul ñàkk waxtaan amoon na ci diggante Aliou Badara Cissé ak Macky ñuy xiiroo ko ngaayoo ci réew mi mel ni xaj ak muus jafe-jafe yooyu yëpp jeex na le quotidien l'observateur libération la turbine le populaire Walfadjri yéen a kaay yëpp xëy xamal ñu nañu Aliou Badara Cissé njiitu réew mi di Macky Sall juboo nañu Macky Sall ci yéen a kaay amul lenn loo xam ne jàppal na ko Aliou Badara Cissé jàmm ak salaam laa ko yéene Aliou Badara Cissé sur l'observateur ne man ab citoyen a si a a kaay ne jafe-jafe yi nga xamante ni amoon na ci diggante Aliou Badara Cissé ak Macky Sall mbaa danañu ko gaaw fàtte turbine ne kaay ñu fekk fa njiitu réew mi di Macky la mu xamle mooy njiitu di Macky Sall bu bëggee yàgg ci bopp réew mi na respecté ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi grenade bi nga xamante ni sànni woon ko si sawiya El Hadji Malick Sy loolee moom fi jëlee Abdoulaye Wade moom Serigne Mansour Sy Djamil la mu xamle mooy keroog bi nga xamante ni xamal mooy jamono ji borom sawiya ba atte na te boobe moom Serigne Mansour Sy la xam ne Abdoulaye Wade day jóge ci bopp réewum Sénégal yéen a kaay kii du l'Observateur mu ñu xamal naa ni ki déemu doomu Abdoulaye Wade bi nga xam ne moo nekk sa kasu bu rëwas di Karim Meïssa Wade dafa reeba maara détaale Kouthia moo ko seeti woon Kouthia la mu xam le ci yéen a kaay kii de mooy Karim Wade am naa mbetteel ci moom ne Karim Wade yaakaaroon naa ne kaso dina ko jàpp mais na ma ko fekke good fine yéen a ak le populaire Karim Wade di fa xam le ne kontaan na lool si ki nga xamante ni mooy Kouthia malam ko tegal mooy deux mille ba suñu jonn yàlla tey ci lépp loo xamante ni def nga ko ci ay émission tooñ ma si dama bëgg nga jox ma ko ndax ma koy seetaanaat laat yéen kay mu ñu xamal laan ñu Kouthia jox na Karim benn billet bu cinq cent jox na ko benn billet bu mille francs jox ko billet bu cinq mille jox ko billet bu dix mille loolu lépp Kouthia jox na ko Karim Wade mu toll si dix-huit mille cinq cent Kouthia ba ñu ko laajee la mu xam ne xaalis moo tax mooy jël xaalis boobay jox ko ko du ki nga xamante ni mooy Karim Wade dina génn sa mooy Kouthia doo xam ba xam li muy wax dëgg la si moom wala day show enquête yéen a kaay mu ñu xamal laan marché gré à yi ma ngi mel ni tulleeg ci réew mi libération yéen a kaay na marché gré à yi bari ci réew mi waaye Xaadim Diop ministre bi ñu dénk wala mu inondation yi moo jóggati kubba bu doon coupe du monde la ñu ne marché gré à gré yi coupe du monde boobu Xaadim Diop moo ko jongati maanaam moo ko jël direct info mu ñu xamal laan ñu Bougane Gueye ak si xeex bu metti xeex bu métte métti si defante la ñu nekk na ba jëlee Pape Cheikh Diallo fi nga xamante ni mooy D-Media Zik FM Sen TV Youssou Ndour jëlee na fa Pape Cheikh Diallo la yéene kaay na la Pape Cheikh Diallo Youssou nangu na ko ci loxoy Bougane Gueye Dany yéene lu toll si ñaari million la Youssou Ndour wax Pape Cheikh ba pare logement de fonction fa muy dëkk Youssou Ndour moo koy fay jox ko benn 4 x boo xamante ni Pape Cheikh mooy tànn 4x4 ko neex directeur info na jamono ji nag diggante Youssou Ndour ak Bougane Gueye coow la commencé tina turbine yéene loo laas yéen kaay ñu fekk fa Balla Gaye numéro 2 la mu xamle mooy lu toll si fukk si ay revanche mën na koo jox Modou te bis bu ñu sëggee bëre moom Balla Gaye nee na koy daana Aziz Ndiaye promoteur bi ñu fekk ko yéen kaay gii du l'observateur ne combat Balla Gaye Modou Lo bu si kenn xalaat ne man bu dee man man rek man Aziz Ndiaye du ma ko tëgg journal bi mu ñu xamal lan ñu Eumeu ba léegi nii kenn mënu koo nax Eumeu Sène dafay bu ñu sukkandikoo daañu salbe ndoom ginnaaw kàcc yi nga xamante ni kàccoon na ko si combat bi dox diggante Modou Lo ak Eumeu Sène ñëpp jàpp nañ ne ndoom dafay noppi la mu xamlewaat moom jigéen ji moom seetkat bi maanaam noppi ma tey noppi mu ëllëg combat Modou Lo Eumeu dañu koo dëpp waaye ndam li si Eumeu la fare woon salbe ndoom noppil waaye waa Pharma Nature ñoo leen doon may seen revue de presse yéen ñi nga xam ne am ngeen ay jafe-jafe si seen biir néegu da ngeen ni gaaw diabète boo xam ne dafa leen a sonal wala siti bu yàgg si yéen wala tension waa Pharma Nature nekkal fi ñi nga xam ne am nañ ay jafe-jafe double 0 221 77 457 57 62 waa Pharma Nature fépp fu mbokk nekk yow lañ fi nekkal mën ngaa jokkoo ak ñoom si produit yoo xam ne lépp dafa naturel boroomi xam-xam saytu ko si anam bu mucc ayib ñoo leen doon may seen revue de presse